lislaamaa ngi jooy jugleen daalal ko lislaamaa ngi suux jugleen suuxat ko lislaamaa ngi jooy jooy jugleen daalal suux suux jugleen suuxat ni yàllay sa buur doo sàkku ngaramam yooneen soppe alhamdulillahi wa kafa wasalaatu wasalaamu ala sayidi alawalina wal axirin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala wa man tabiahum bi imaanin wa ixsaanin ila yawmi ddin wa baadu fassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yéen mbokk yi topp seen site muslih tv point com seen mbokkam daara Alioune Cissé moo del siwaat ak yéen seen jotaay bi ñu tuddee xam seen xam sa diine ki liggéey bi nga xam ne simboon na ko ak yéen mooy den jéem a toppante ak yéen ci téere bi ñu tuddee al axdariyu fi l ibadat ala mazhab imam malik radiallahu anhu dayo woon na ñu jëloon suñu darse bu njëkk kon tey ñu jéem a ñëw ak yéen rek suñu ñaareel darsi ci téere bi ñu war a commencé tey fi borom téere bi di wax naan wa yajibu alayhi al mukal an yuxaafisa ala xududillahi wa yaqifa inda amrihi kon foofu la ñu war a commencé tey mu ne wa yajibu dafay war alayhi ci mukallaf an yuxaafisa muy wattu ala xududillahi ci digaloy yàlla wa yaqifa muy taxaw inda amrihi ci ay diglay borom bi waaye wa nahihi ak i mu bàyyi lépp kon nee daal mukallaf bi dafa war a def yitte ci digale yàlla yi nga xam ne moom la yàlla rëdd na bu ko kenn jéggi mu bañ koo jéggi ndax digaloo mooy lan mooy boo demee ci àll ba li mel ni tool ñaari tool fi ñu dajee espace bu ndaw boobu ñuy bàyyi loolu la diggaloo te digaloo te yent xam ne dafa waxoon ne inna al xalaala bayyinun wa inna al xaraama bayyinun wa baynahuma umurun mutashaabiha nee daal li dagan leer na nàññi waaye naka noonu li xaraam leer na nàññi waaye dafa nekk ci diggante lu xaraam ak lu ay mbir yoo xam ne dafa lënt te li gën a bëri ci nit ñi nag xamuñ ko te kon moo tax boo bëggee sa diina ñoŋ sa diina mucc ay du mucc mucc set lool bañ ay bañ see nekk mooy nekkal ci li xaraam moytu yu lënt yi ndax képp koo xam ne nee na soobu nga ci lënt yi ah booy dugg ci xaraam yi doo ko tey moo tax boo bëggee sa diina ñoŋ daal yemal ci yi nga xam ne dagan na nga xam ne mënoo koo jeexal bàyyi fii lënt yi waaye ñun nag li gën a bëri léegi dañuy yittewoo di xam yi lënt yi te li gën a bëri suñu mënuñ koo ràññee kon moo tax daal nee na jaam bi dafa war def yitte ci diggaloo yàlla yi mu taxaw ci bañ koo jege bañ koo jege waaye naka noonu tamit a ne wa yaqifa mu taxaw inda amrihi ci digle borom bi lépp lu yàlla digle nga góorgóorlu ci loo man sa kem tolluwaay kattan ndax fattaqullaha mastataatum ragal leen yàlla def leen yitte ci yàlla comme ni ngeen manee waaye ah, yi nag moom dañuy bàyyi lépp li ñu yàlla digal amaana mënuñoo def lépp waaye tere yi moom lépp la ñuy bàyyi yàlla lépp lu ñu tere rek dafay fekk ñu mën koo bàyyi te buñ ko bàyyee sax dafay gën a rafetal suñu dund waaye lépp lu ñu yàlla tere bu ci jàmm bi sooboo ci ak dese ak manki ak waye di ci la koy yóbbee kon mi ngi noonu daal moo tax mu ne waye ji bu dafay war alayhi ci mukallaf a yu xaafisa muy wattu ala xududillahi ci digalo yàlla yi waaye wa yaqifa mu taxaw inda amrihi ci diglay borom bi ci taxaw def jéem a def kem ay wa ak i tereem tere yi moom mu bàyyi lépp lu yàlla tere ginnaaw ba mu bàyyi ko ci loolu nag mu ne waaye tuuba muy saxu tuub moom jàmbi ilallaahi jëm ci yàlla subhanahu tudd na sell ak yàlla moom jàmbi nag su paree ci loolu nee na nay saxu tuub jëm ci borom bi subhanahu wa taala moom borom bi nga xam ne moo santaane jàmm ñi tuub nga xam ne sax ku mel ni yonent yàlla muhammad sa alayhi wa sallam xam mooy ki ci yàlla mos bind moo ci gën moom mi nga xam ne moom daana wax ci xadis xadis boo xam ne imam muslim moo ko nettali mu ne wallahi inni astaghfirullaha wa atubu ilay fi yawmin akthara min sab'ina marra moom yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na moom de day jéggalu yàlla di tuub di dellu ci moom fii yawmin ci bis aksara min sab'ina marra day jéggalu yàlla ci bis lu gën a bëri juróom-ñaar fukki yoon moom yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci beneen riwaaya boo xam ne imaamu buxaari moom moo mu ne moom yaa ayyuha nnaasu tuubu ila llahi wastaghfiru fa inni atuubu fi yawmin mi'ata marra imam Buxaari moom bi nettali ne yent yàlla Muhammad moo ne yaa ayyuha nnaas yéen nit ñi da leen tuub jëm ci yàlla ndax moom yent yàlla Muhammad nee na dafay tuub jëm ci yàlla ci bis bu nekk téeméeri yoon moom yent yàlla Muhammad day jéggalu yàlla ci bis téeméeri yoon te moom yent yàlla Muhammad miy jéggalu téeméeri yoon moom la yàlla doon wax ci suratul fatxi na ko inna fataxnaa laka fatxan mubina li yaxfira laka allahu ma taqaddama min dambik wa ma taaxara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima moom jéggalu yàlla téeméeri yoon ci bis wala juróom-ñaar fukki yoon ak lu ko ëpp ci bis moom yàlla nee na ko baal naa la say bakkaar yu njëkk ak yu mujj moom yàlla baal na ko léppam te teewut moom daana jéggalu yàlla téeméeri yoon ci bis wala juróom-ñaar fukk ak lu ko ëpp te ñun ñi nga xam ne nag tey baala guññu te suñuy bàkkaar te tey la gën a bëri ñoo gën a dàq def bàkkaar ndax ci la xëy di ci gontu dëkkee ko kon ñun ñaata yoon leen war a jégalu yàlla ci bis kenn xamul lim bi kon jég bakkaar yu bëri nag dafay waral sax ci réew ñàkk bakkaar yu bëri li muy waral ci réew lu bëree bari la moo tax Xasan al Bachir dafa toog benn waaye ko de ñun de dëkk nawet bi daal dootu ñëw heure bu ñëwee loo yaakaaroon nawet bi da koy tas looloo yaakaaroon rek bu nawet bi ñëwee dana ko tas ndax nawet bi du demee noonu ah, mu ne ko dem leen ngeen jégalu yàlla ci jotaay bi beneen waaye ñëw ne ko ñun de suñu dëkk léegi dañuy takk rek waaye ku takk daal sëy mun mënut doom mënu cee juddoo mu ne ko dem leen ngeen jégalu yàlla benn waaye ne ko ñëwaat ne ci benn jotaay bi ne ko ñu suñ dëkk daal kenn mënu faa liggéey ba am dara mu ne ko dem leen ngeen jégalu yàlla am ko toogoon ci jotaay bi ne ko waaw imaam yow daal ba nga fi toogee ba léegi ku ñëw jàmbar la soxla rek yow jégalu yàlla nga koy wax mu ne ko waa li ma wax alquran la ndax boo delloo ci alquran da ngay dégg suñu borom bi di wax naan wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffara yursili samaa alaykum midrara mu ne bu ngeen dee jégalu yàlla yàlla day ibbi asamaan ndox mi wàcc ànd ak barke te Seydina wa xaysu yujadul maau yujadul maalu Seydina Omar day wax ne fu ndox bëri rek ah koom-koom am fa kon moo tax nee na buñ di jégalu yàlla ndox dafay wàcc waaye yàlla tamit nee na njaboot dafay am waaye moo tax léegi jamono xam naa bakkaar yu bëri moo tax fukki say yoo gis ñu takk léegi daanaka mën ngaa wax ne juróom-benn ya day ñaan ji am doom amaana bakkaar yu bëri moo ko waral waaye naka noonu dëkk bu bekk bekkoor maanaam ñàkk bokk na ci li koy waral tamit bakkaar yu bëri moo tax Hasanul Bachri ba waa ji ba gaa yi ñëwee jàmbat ko loolu la leen wax ko ñoom defe ji ko moo tax kon istighfar ëpp naa sàgganee mooy li nga xam ne moom la yàlla joxoon garante xeetu yent yàlla Muhammad dana ko maa kaana allaahu muadibahum wa anta fihim yow yent yàlla Muhammad yi du ma leen alak du ma leen alagandoo féegi yaa ngi ci seen biir waaye ginnaaw boo fi jigéen nag féegi ñi ngi def istighfar di jégalu yàlla waaw du ma leen bëggalandoo kon moo tax ëpp naa sàggane moom istighfar kon jàmm bi daal na koy takkoo moo xam xëy la guddi ngoon heure bu nekk nay jéggalu yàlla fu mu toll rawat na nga xam ne léegi jamono bàkkaar dafa yomb lool daanaka moom naan ndox ñoo yem kon moo tax mu ne waaye tuuba na ngay saxoo tuub ilallaahi jëm ci yàlla subhanahu tudd na sell ak yàlla xabla an yasqata alayhi njëkk yàlla di la mere kon daal boo def nga bàkkaar daal dawal gaaw nga tuubi ko njëkk yàlla di la jéppi tuub moom nag muy wax léegi moom la bëgg a leeral mooy lan ak lan mooy ay sartam ak lan mooy tax mu wér moo tax mu ne wa suruutu tawbati nag sarti tuub tuub condition yi tax sa tuub wér mu ne bi ci njëkk mu ne an nadamu mooy rëccu nga rëccu bàkkaar bi nga doon def bu da nga daan jaaloo nga rëccu lan moo tax nga daan jaaloo bu dee da nga daan sàcci nga rëccu lan moo tax nga daan sàcci maanaam mboolem xeetu bàkkaar boo doon def rek nga rëcc lan moo tax nga ko doon def moo tax mu a an nadam mooy rëccu ala a faata ci li passé bàkkaar ba nga daan def ci ginnaaw daal nga rëccu ko boobu mooy bu njëkk bi bu ñaareel bi mooy wan niyatu mooy nga yéene allah yahuda dootuma ko defati ila zanbin ci bàkkaar boobu ma defoon fi ma baqiya min umrihi maanaam bàkkaar bi nga xam ne yaa ngi koy tuub da ngay fas ci sa xol ne bàkkaar bii moom ci àdduna moom fasuma yéene defate ko ci noonu ngay fasee yéene waaye nag xaaral ma def ba su ma paree jégalu yàlla déer loolu du tuub tuub balaa mën a wér mooy bàkkaar bi ngay tuub da ngay fas ci sa xol ne bàkkaar bi dootuma ko defati mukk mukk mukk waaye di tuub naan xaaral ma def li may def su ma paree jégalu yàlla yàlla ko baax la waaye tamit yàlla ko baax la de waaye mbaaxaan nga def am ci lu ko tënk boo ci génnee nag boobaa mën naa am dootoo dugg ci sa mbaax ga kon moo tax mi noonu nee na bu ñaareel bi mooy war niyyatu mooy nga yéene allah yahuda ngay bañ a dellu ila zan biñ ci jëfaat bakkaar bi fii maa baqiya ci la des min umrihi ci sa dund nga bakkaar boo daal dootoo ko defati bi ci ñetteel mooy mooy wa an yatruka nga bàyyi almaasiyata mooy yàlla ga fii saatiha ca waxtu wa in kaana dem nekk na mutalabbisan biha bu dee bu ñetteel bi mooy nag bàkkaar ba nga nekkoon di ko def bu dee jamono yi ngay tuub dalaa fekk ngay jëf bàkkaar bi danga koy bàyyi ci sens yi bu dee njaay mu xaraam la woon nga doon jaay bu ko yeggalee da nga koy bàyyi la des da nga koy da nga sànni ko wala da koy sànni wala nga taal ko waaye doo ko mayee bu dee njaay mu xaraam loo xam ne islam gërëmu ko na xaaral ma yeggali li ba pare dooru tuub déedéet fa sa xel nekkee ci tuub loola desoon ci lu xaraam la nga yoroon da nga koy sànni teg fële dem defe jiwaat leneen lu baax kon daal moo tax mag ñi nag daan ko tënkee melokaanu tuub mooy yow mi xulle di tëb ba dëgg ci xalu safara ku ku tëb ba dëgg ci xalu safara nag dese nga beneen tëbin tëbin boobu mooy iqlaa mooy nga dañ ci bàkkaar bi de te ku tëb ba dal ci xal nag dese nga beneen tëbin waaye beneen xal xal bi lay lakkaat du nekkaat booba xal xal boobu moom beneen xal lay lakkaat waaye xal bu nga xam ne moo la lakkoon mu dootu la lakkaat mooy boobaa moom da nga ko réccu dootoo ko defati kon mi ngi noonu kon daal ñetti sart yooyu bu dajee ci tuub rek mën ngaa jàpp ne sa tuub sa tuub wér na bi ci njëkk mooy annadamu ala ma faata mooy nga rëccu bàkkaar bi lan moo tax nga daan def waaye bu ñaare bi mooy wan niyatu allah yahuda nga yéene ne dootoo ko dello dootoo ci dellooti te loolu ku nekk man nga ko kiiwal sa bopp xamal sa bopp bu ñetteel bi mooy bàkkaar bi nga bàyyi ko ci sens yi bu dee jamono yi ngay tuub mi ngi la fekk nga nekk ci danga koy bàyyi ci sens yi mu ne walaa yaxilu du dagan lahu ñeel mukallaf an yu yéexee tuub daganut ci mukallaf mu nekk ci bàkkaar ñi ko koy aaye mën a naa bàyyi ba màgg wala naa bàyyi ba nangam wala ba am 40 ans wala naa bàyyi ba cinquante ans door a kii déer daganut de nit ki daal bu defee bakkaar yëg na def na bàkkaar na gaaw jéem cee génn balaa merog yàlla di ko ci fekk ndax nekk xale terewut a baax nekk xale terewut a baax moo tax ahmadul bushayri ah ba muy jàngal yent yàlla Muhammad ci téere ba ma ngi doon wax ne moom yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moom mi nga xam ne mooy suñu royukaay nee na alifa nuska wal ibadata wal xalwata tiflan wa hakaza an nujaba o mu ne yonent yàlla Muhammad de demoom miinoon na jaamu yàlla miinoon na wéet ñu ne ko kañ la mun a tiflan bi mu nekkee ndaw mu ne wa hakaza an nujaba o mboolem mi tànneef mboolem tànneef yàlla yi nee na biñ nekkee xale ci la ñu teel a bàyyi xel seen borom kon bu fi toog daal na may bàyyi ba nekk mag door a baax wala li ma nekk nii suma màggee génn ci loolu bu ko di wax mu ne wa iza xallatil hidayatu xalban nashitat fil ibadati aadaa'u nee na jaam bi bu ko bu ko yàlla naree jubal ay cëram dafay teel a sawar ci jaamu yàlla jamono yi mi nga xam ne ci la nekk ndaw moo tax daal nit ki nee na daganul ngay yéexee tuub wala yaqul bul wax ne xataa yahdiyani llahu damay bàyyi ba yàlla jub ma loolu tamit nee na bokk na ci màndarga yi texe xeet yi fa innahu naka toog di wax ne damay bàyyi ba yàlla jubal ma min alaamati shaqaa bokk na ci màndargay texee di wal xaslaani ak gàcceel wa tamsil basirati ak far ak far gis-gisu xol kon nekk fi daal damay bàyyi ba yàlla jubal ma dafay waral bàkkaar yi muur mujj muur sa xol bi ba nga xam ne yow daanaka jaamu yàlla dootu la safati sa xol day mujj ñuul ku ku ko ndax bàkkaar yu bëri kon nit ki daal bu defee bàkkaar bi nga def na bàkkaar ah na gaaw dem tuubi ko xam naa kon dañu doon ndax nit ñi junñi ne dañu amoon ci waxtu yi jeex na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 jug leen daalal ko lislaamaa ngi suux jug leen suuxat ko lislaamaa ngi jooy jooy jug leen daalal ko lislaamaa sa buur